onze billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim donc euh, gars yi kenn ku nekk euh, ñoo ngi lay nuyu fii sa tur ak sa sant di leen jaa jaajëfal ci li ngeen wuyu si ci li écurie Pikine Falaye Baldé nar a dëgmal muy lan xeex ak li nga xam ne moo fi nekk te ñëpp xam nañ ko muy Covid 19 bi nga xam ne sonal na ñëpp ci kaw loolu. lañu ànd ak suñu leader leader muy Amadou Ama Ama Baldé pour organiser journée yu mel nii wàcc ci école yi ak ci daara yi ak ci jumaa yi ak ci grand place yi pourquoi pas pour def suñu participation ci feebar bi feebar bi nag ñii dañuy laam-laamee ñii naan am na ñii naan amul ñun li ñu gëm mooy am na ñun li ñu gëm mooy am na te suñu écurie dañu bëgg ñun suñuy supporters ki nga xam ne moo nekk suñu bopp écurie aussi di Ama Baldé bëgg ay supporters am te bëggul ay supporters am am ay problème wala ñu gaañu ci ci kaw loolu moo tax ñu ne dañuy lancer journée de sensibilisation wàcc ci école yi wax ak directeurs yi def ay démonstration ak les élèves yi nga xam ne suñuy sët lañu ak suñuy doom ak suñuy jarbaat parce que xale xamul dara loo ko wanul xamu ko bu ñu demee ci seen kilifa yi nag ñu seen directeurs yi ak seen responsables yi seen maîtres yi bu créé bu ñu demee ak ñoom ay démonstration buñ ko tàmmee jeex na ci kaw loolu moo taxoon ñu woo la presse pour wax leen ne ñun li ñu war a def yëpp muy sensibilisation au niveau des institutions départementales dinañ ko def commencer ko à partir de maintenant les écoles primaires la ñuy ciblé les mosquées les églises et les daara te ku nekk xam na ne foofu ay xale ñoo fa nekk te comme ni ma ko waxee xale yooyu suñuy doom lañu ak suñuy jarbaat ak suñuy sët donc ci kaw loolu je sais pas s'il y des questions à poser euh, pour les journalistes ku ci am question booy laaj nga wax bu ko defee ñu tontu la par rapport à cet événement. S'il n'y a pas question aussi, on continue. Donc nous allons démarrer euh, cette journée dans le département de Pikine. Ouais. Voilà. Uh-huh. Uh-huh. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Uh-huh. Mhm. Mhm. voilà très bien xam bien dit que ne Ama mooy tête de filu écurie Pikine Falaye Baldé mais ci écurie bi la bokk te ñun ñi toog fi yëpp ñun nous sommes le bureau de l'écurie Pikine fallay Baldé mois qui te parle je le président le secretaire tout le monde est la mais empêchement day am te affaireu làmb la ñëpp xam nañ am loo xam ne moo ko téye booba tey maa ngi ciy insister ci loolu mais dan ma ne ñoom pareeguñu lu ñu pareegul nag le président ne peut pas le risque indi ko par force mu ñëw parce que affaireu làmb la yéen ma ko gën a xam vous les journalistes du ma dugg trop ci biir mënuma ci sori foofu laa ci mën a yem. Mais en dehors de Ama, ce n'est pas Ama uniquement qui fait l'écurie Pikine Falaye Baldé. D'accord, c'est le leader. Mais les autres sont là, prêts à répondre à toutes les questions. Donc euh, ci gàttal loolu rek laa ciy tontu quoi te xam ne aussi bon incha allah bu paree d'ici euh, ñuy commencer suñu distribution ndimbal yi ñuy yóbbu il va nous rejoindre incha allah quoi. voilà c'est que aussi rassemblement bi comme le préfet l'a dit rassemblement bi préfet bi ñun caravane sax la ñu waxoon ak moom. mais le préfet a dit que comme que am na arrêté yu gën a comme quoi que bëgguñu caravane aussi même lii sax dañu ko tere woon nañ la wax dañ ko def dans la plus grande sobriété mais fu ñu waxee écurie Pikine Falaye balde teg ci Ama ñëpp xam na ne kenn dootul mën a téye sa bopp alors ñëppay ñëw moo tax ci kaw loolu mu bëgg a sensibiliser euh, dëkkuwaayam Pikine sensibiliser ay supporters am sensibiliser ay andi jàmmam comme quoi que. feebar bii nit ñi di laam-laame ba mu jaral ñenn ñi nga xam ne du ñu sol ay masque sawaay te ñuy nekk ay nitam ak ay supporteram ñu jàppale ko ci parce que ni mu leen bëggee ñooñu noonu lañ ko bëggee bu ko defee ñuy sol ay masque di moytu teg mesure barrière yëpp moo xam saabu bi la moo xam masque bi la moo xam gel bi la donc ci gàttal daal loolu laa mën a tontu par rapport à ça une fois de plus daal affaire u làmb la quoi te ñoo ngi ciy jégalu bu baax quoi voilà voilà gën a xam léegi euh, affaire làmb la yéen a ngi def pour sensibiliser pour ñu xeebale ko am. voilà amiin amiin. ngeen jël ci combat boo xam ne combat royal la at ñëpp di ko xaar. waay tey ñuy wax ne waxu huis clos. moo mën a am. loolu làmb du mën a am. Mhm. Mhm. arrêté woon mhm. point de presse am na ñoo xam ne dañu ne bu ñu ko defee fii boo sàgganee ci boteeru Ama Baldé mën nañu force porte bi est ce que tamit seen sensibilisation tey bu ñu leen da ngeen di bëree ci huis clos est fi nga fi nga fi rek foofu laa lay yooyu dañuy ñaan yàlla huis clos sax bañ a am avant loolu comme ni nga ñaanee yàlla feebar bi dañ nu mu gën a gaawee ñun foofu rek la ñuy taxaw di ñaan yàlla mu gaaw a koo dindi bu ko defee kenn ku nekk dellu sa activité ko voilà mais quant à huis clos non ak leneen lool ñun nous n'avons pas cette responsabilité là. y a l'État qui est là y a le ministre des sports qui est là et cetera et cetera ñoom bu ñu ko waree dindi rek dinañ ko dindi quoi mais ñun munuñu foncer wu ci huis clos ak non huis clos dañuy ñaan yàlla kay daal bañ ci eggee ak jàmm ak salaam mu bañ a am huis clos bu ko defee ñi bëgg dem yëpp mun a dem seetaani ko waaw mais <laughs> waaw waaw waaw waaw <laughs> leen rek ah. waaw kooku waxam la il a le droit il waxu làmb la rek waxu la la rek comme ni ma la ko waxee rek ñun buñ ci tollee ñun tamit incha allah dinañ ko gis dinañu gis. koo fi tudd léegi. non non soxla soxlawu ma ko soxlawu ma ko parce que man géré wu ko man ki ma géré rek man ki ma géré rek ah. waaw baax na ba tey rek ñun ba tey baax na rek buñ ca egg ak jàmm ak salaam daal dinañu gis. moom it euh, dinañ ko gis waaw buñ dañ ci àgg ak jàmm ak salaam rek li des yëpp waxu làmb waxu mbër la rek waaw. bon euh, Souleymane néanmoins le grand frère de Ama est là Jules est mun na ci sànni yenn kàddu aussi quoi pour son petit frère voilà. Hmm? c'est bon des questions pour le grand frère de Ama Jules Baldé Siana. waaw. lii de lu baax la. ndax lii lu baax la ndax fi ñu toll feebar bi mu ngi ay kilifu. dañuy nekk hôpital ñoo gën a xam loolu. feebar bi moom xale mag ñëpp war a takk max laal zel. mootu mootu dafa baax ndax feebar bi dafa garaaw trop feebar bi dafa tëj gaa de. du tëj Amérique Japon Chine. France Italie Espagne. Mm. Allemagne. Mm. ja moo jaaxal Sénégal. lu jaaxal dëkk yoon xaju Sénégal nañ moytu moytandiku baax na trop fagaru gën faju waaw looloo tax moo tax ñu def lii ah mu ngi fi. non bu war a feeñam jotagul. <laughs> dégg nga li non non foofu tollagu yow yow feebar boo xam ne moo tëj monde bi ngay wax waxu làmb yow lii nañ jéem a lii dañ yow lii mooy mbër boo xam ne ko kenn mënu ko ko daan non làmb heure làmb jotagul bu jotee xam xam nga ma xam naa la xamante ñu nañ wax si lii mu ji mbër bi nañ ko jéem a daan bokk fii toll mbër ñoom Balla Gaye ñoom Modou Lô ñoom Ama ñoom Bombardier ñëpp song nañ ñu ko daan Amérique waxu nopp nañ jéem daan lii bu daanee rek après. jub si loolee. waxuñu promoteur Gambey yooyu lii feebar bi nañ koy jéem a daan. bu ñu feebar bi rek xoolal fu mu nekk mun na fa am. heure bi jot xam lu nekk lu nekk ba mu jotee xam nga ba nga jotee wax heure jot mun a am mun a wax. heure bi la affaire bi tembare ndax feebar bi fi toll dafay gën a yokk dégg ñu ne beneen feebar moo beneen bu génn beneen boo xam ne moo gën a garaaw bii kon war nga bàyyi sa xel xam ne kon il faut mu def lii pour mobiliser gars yi gars yi gën a gën a fagaru beneen question une autre une autre question. xamante xam nañ xiir bi leen dañ xam nañ leen wax waxal bàyyi ñeneen waaw. une na wax bu ñu ay xiir yooyu yooyu bu ñu tollee xam ma yow man après rek yow nañ wax si liir na lii jugee fi rek. na feebar na feebar rek na feebar jugee feebar jugee rek. ah. kooku après combination dina la wax ñaata la waaw. Mm-hmm. Aly Ngouille Ndiaye tamit seen relation ak moom lan la parce que gis nañu. loolu communication la ci wax. vraiment yéen a ngi président bi dina ci wax. lu waral diggante bi. lu yàgg la wala lu bees. waaw loolu président day si wax. incha allah loolu président day si eggale. waaw man kës la man ni daanee ca waxal loolu laa xam. <laughs> kara lam joragul. taxaw waaw. xam nga da nga posé loo yóbbaale te loolu du tey nañ wax si lii tey feebar bu ñu si waxee ba pare ëllëgee boo ñëwee li nga bëgg a yóbbu yób yóbboo xoolal nga naa la camion ndax day diis. nañ wax si lii quoi bu ñu waxee lii ba pare ëllëgee boo ñëwee pour làmb ja da nga yóbbu lu bëri. waaw tollaguñ foofu xam nga ay bàyyi xel ay yooyu yëpp tollaguñ foofu bu ñu rek da xam bàyyi nañ xel waa bàyyi ñu xel. incha <laughs> ok ah maa ngi nuyu waa presse bi ah.